Assalamu alaikum. ci fête indépendance bi ma ngi sàkku suñu borom ci wéru koor wu tedd wi mu dolli jàmm Sénégal président Bassirou Diomaye Faye mi suñu borom teg réew mi ci loxom li mu nas ko na jox wi président Ousmane Sonko yen wi ñu ko teg na suñu borom bi mu am. ñu am ko ñëpp ci defar réew mi yal nañu ko yàlla yombalal yal na yàlla def jàmm ci senegal yal na yàlla def tawféex ci Sénégal yal na yàlla dolli jàmm ci senegal yal na ñu yàlla kàttanal yal na ñu yàlla dolli lépp loo xam ne bànneex la te ñu bëgg ko ci réew mi li ñu bëgg di defar réew mi yal na ko yàlla yombalal ci ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi am yéene defar Sénégal vive le Sénégal. Vive la République.